ginnaaw accident bu métti bi nga xam ni moo daloon seen kaw ni ki tey ba am ñenn si ñoom ñoo xam ni sax dañoo mujjee ñàkk seen bakkan ñeneen si ñoom daal di siy mujjee am ay gaañu gaañu yu métti ñoom ñooñee nag ñoo daal di nekk nii tëdd di faju ginnaaw seen gaañu gaañu yu métti yi nga xam ni ñu ngi ko amee ca bis ba ñu yéegoon bis boobee nag moo daal di mbëkkante ak beneen bis ba tax ñenn si ñoom sax daal di siy mujjee ñàkk seen bakkan ñii nag daal di siy mujjee am ay gaañ gaañ yu métti comme ni ko gisee nii ñu ngi si biir hôpital bi moom président bu Sénégal di Macky doon fa amal amal ab visite ni ki tey si ngoon si ba tax na sax ginnaaw boobee mu daal di fay mujjee yëkkati waat yeneen i kaddu kaddu yooye bokk na si ab deuil national maanaam dëj boo xam ni askan wi yëpp ñoo koy bokk nga xam ni dina commencé ni ki suba si 9 janvier jàpp ba 11 janvier nekk ab dëj boo xam ni askan wi yëpp ñoo koy ànd daal di koy bokk ndax tiis ak naqal bi nga xam ni moom la ñu yeewoo ni ki tey si soog bu métti bi nga xam ni jamono ji àdduna bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee waaye ñoom ñi nga xam ni ñoo si jot am ay gaañu gaañu ñu ngeen i masaw di leen ñaanal tawféex bañ mën a ñibbiwaat si seen i njaboot